mu àggale ko ba naal yeneen ak yeneen te ànd ko moom ñuy ñaanal suñ mun taxa ñu ñaanal suñ Moussa Diatra mi xam ne mooy responsable bibliothèque bi Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom la ko xaalis bi teg si loxoom ñun tamit mu dénkaan ñu liggéey bi nga xam ne muy salle de lecture et de recherche bi nga xam ne salle la boo xam ne bu solo si bibliothèque bi ndax am na année yoo xam ne euh, salle bi amu fi woon mais ay 2017 nañu fi euh, implanté salle bi te chaque bibliothèque si àddina bi yëpp bibliothèque su amul salle de recherche daanaka euh, amul day am yu des bëri bëri léegi on a jugé nécessaire ñu seet ne ginnaaw mënu fee ñàkk yàlla dogal ñu ut ko fii ay ñoo xam ne dañuy suñu partenaires yoo xam ne jàpp nañu si salle bi équipé ko def lépp waaw nag salle bi. objectif mooy maanaam dañuy fexe ba lecteurs yi ak chercheurs yi eh, ñëpp fii ñëw na maanaam fii amul tabu daal maanaam amul ñu parce que barabu xam-xam la eh, ñi fi ñëw eh, surtout ne question ñi ay musulman lañ wala ñii nangam nangam xam-xam daal moom lañ fi woote ku ñëw pour xam-xam alors mën na jox nga dugg fii liir wala nga def ay recherche donc euh, loolu aussi si biir euh, salle bi ni ñu aménagé salle bi nii euh, daara mën nañu wax ne salle bi moo représenté salle yi fi nekk yi ndax lu mat quatre salles moo fi nekk salle bu si nekk dañuy jël ay fonds documentaires am indi ko fii nga xam ne day permettre au chercheurs et lecteurs ñu am accès bu yomb boo xam ne dañuy ñëw toog dem jël benn livre ñëw toog au lieu ñu daar dem ci yi nga xam ne salle dépôt la léegi yooyu yëpp euh, amatu fi donc euh, loolu facilité la boo xam ne ñu ngi ko defal waa bibliothèque bi ak lecteurs et yi saal bi aussi du rek parce que ay liir euh, ak ak def ay recherche la mais dañ fi def aussi ay programme yu mel ni ki ay conférence euh, yoo xam ne dañ ko def si jamono koor gi ñu ko dundal koor dañ fi def aussi si saal bi euh, ay compétition ay jeunes en herbe en franco-arabe milieu religieux la yu si bëri bon loolu toujours coran bi alquran bi ak diine l'islam bi yu si bari quatre-vingt-quinze pour cent yi moom la ñu koy gën a utiliser waaw léegi kon euh, jeunes en herbe bi ci yooyu lañ jël école yi fi ñëw ñoo tam dañuy def aussi en même de recherche waa université bi Al Azhar bi dañ fi ñëw ñu bare bare di fi ñëw di fi gëstu machines yi aussi c'est à la disposition aussi des chercheurs yi dañuy ñëw toujours mi ngi am connexion ku bëgg a def si recherches dañ lay permettre nga def ko accès bi nag moom lan la soo ñëwee fii il faut ñu ko jox une pièce d'identification boo xam ne day wane ne euh, yow yaay euh, kan boo xam ne en cas si livre suñ ko perdre wala nga yàqu ko wala dara alors su boobaa ñu mën ko kii seet na lañ ko doxalee ak yow moo tax ñu am sécuriser ko ci loolu pièce rek la laaj laaj ñu fi kenn dara benn dërëm laaj ko salle bi moom tout est gratuit léegi nag moom moom loolu moom moom lañ fi jot a def ci liggéey bi daal. jàkkaarloo ni ñu tudd Mademba Seye nekk étudiant si université si Ahmadou Bamba ñu koy wax ECAP. Euh, fii nag dañ fiy ñëw di gës euh, suur yi nga xamante ni duñ am cours fale si université bi ak quelques matières yi nga xamante ni dañ koy am fee tamit te téere yooyu noonu pour ñu am ko si yeneen makta bi day xaw a jafe dañuy ñëw fii ni di ko fi gës lu mel ni étude islamique ñu koy wax dirasat al islamia ak lu mel ni ilmal falsafa ak lu mel ni géographie wala histoire dañuy am problème léegi-léegi après bu dañuy ñëw fi di yaatal suñu gëstu si maktabu si Ahmadou Bamba te amaan na yeneen njëriñ tamit eh, bu avant maktab bi ñëw fii nii danaan am leem léegi-léegi quelque téere waaye bi mu fi ñëwee ba léegi dafa yombal suñu gës ndax mbooleem fànni xam-xam yi lu mel ni technologie am na fi géographie étude islamique lu ñuy wax ak ilmul falsafa ak euh, yenn téere yi nga xamante ne ñu ko bind si histoire Sénégal ak yenn téere yi nga xamante ne ñu ko bind si histoire si Ahmadou Bamba ak mag ñi nga xamante ni ñoo nekkoon Sénégal ak ay doomam ñi nga xamante ni ñoom la bàyyi woon ginnaawam am na njëriñ lu bari si ñun daal suñu amee problème si yu bari daal si wàllu gëstu beeg yooyu noonu mën na ni moo nu ko yombalal léegi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 wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen di siyaare wér bu baax baax ci liggéey bi man nag maa ngi tudd Alioune Sougo nekk taalib ci jaamiya si Ahmadou Bamba ICAB di rafet lu baax baax lii di sant bu baax kilifa gi nga xamante ni wax dégg ndimbal li ci moom la jóge ko ñaan suñu borom yokk leer bu baax a baax di Cheikh Abdoul Ahad waaye di sant bu baax a baax kilifa gi yot ki ki jox liggéey muy sëñ Moustapha Diatara eh, maktab bi nag am na solo lool parce que ay tulaab la ñuy yoo xam wax dëgg li ñu fiy teew moom bari na lool te njëriñ rek lañ ci gis ba tax maanaam wax dëgg nit ñu ngi bàyyi ko fu ne ci dëkk bi ñoo fii ngir di jëriñu ci wàllu baxsu waaye itam ci wàllu yokk seen xam-xam ci côté yi ñu nekk muy ne boo xoolee ñi nga xamante ne nii ñooy jàng arab nekk ci école yi ak ñi nga xamante ñoo nekk ci université bi boo ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, daara yi def majalis ñoom ñëpp wax dëgg ñu ngi gis seen bopp baax baax ci maktab bi parce boo fi ñëwee di nga fekk euh, majalaat yu bari bari bari yoo xamante ni wax dégg euh, dana jëriñ képp koo xamante ni yaa ngi fi ñëw parce que ndax dégg maktab bi omb na loo xamante ne nii ci ay buxuus muy ay kutub yoo xamante ne nii euh, njëriñ lay nekk ci ñi nga xamante ne nii ñooy sàkku xam-xam bari na lool bokk na ci comme ni ko mbokk mi waxee am na ci euh, côté boo xamante ni dañu ko jégle sariya loo xamante ci sariya la jëm muy fiq ak xeet yooyu ak tawxiid ak am na yoo xamante ni yot ci adab la jëm am na yoo xamante ci alxuraan la jëm ak ak ak ulumul quraan kon loolu tawfiq la te yot maanaam wane na ne xëy na la sëñ bi bëggoon moom daanaka wax dëgg nit ñaa ngi ciy jëriñoo bu baax baax ci béréb bi wax dëgg gisuñu ci leen lu dul njëriñ comme ni ko mbokk mi waxee parce que boo fi ñëwee suba wax dëgg boo da fiy def diir bu yàgg ngir di baaxsu parce que ku ne xam na ne baaxsukat eh, def ko def ko ci maanaam defe ko ci béréb yu mel nii mooy gën des ci nit ki parce que bu kente maanaam dem nga ci foo xamante ni ay teere lañ fa def comme maktab bi eh, la nga fay baax su noonu mooy gën mooy gën a des ci yow nii la nga xamante ni dañ koy baax su sa téléphone wala nga koy leneen def leneen kon wax dëgg njëriñ bu baax lañ ci gis na liñ ci dolli rek mooy liñ ci liñ doon sàkku mooy xëy na maktab bi ba gën na mën a bari comme ni ko mbokk mi waxee bari ci dëkk bi loolu dana am solo bu baax a baax parce que wax dëgg am na solo waaye nag xëy na day am ñoo xamante ni fi ñu nekk di xaw di sori lool saxen moo tax xëy na nii ñu fi war na jëriñoo dégg-dégg day des parce que bu ni xëy na semaine bi benn avion rek nga fiy ñëw loolu day mel ni di xaw a di xaw a am kii bu ko defee li ñu doon sàkku daal xëy na bu génnoon a mën a bëri ci dëkk bi waaye yoo tam kasaalika euh, téere yi fi nekkoot ñu gën koo yokk bu baax a baax ba nit ñi mën cee gën a jëriñoo loolu day am solo parce wax dëgg njëriñ doog dégg la nag rek ngi tub bu baax nag di jéeg lu baax ci cadeau yi euh, maktaw bi euh, da ko baax de maam booy booy liir maam da nga mën a liir euh, da nga mën da nga fi mën nekk suba suba suba ba ngoon di liir te doo kii doo am benn problème wut na maktaba yi nga xam ne daanaka su suba suba gi dong suba gi dong la ñuy liir fii bokk nga xam ne dama ko dama ko fay rafetlu maam suba ba ngoon nekk mën nga fay nekk liir te kenn kenn kenn du la kenn la yàqal na ci li nga xam ne moom gën a marqué ci ci ci ci maktaba bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa